لله الكريم زلمنا على استغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم زلمنا على استغالي بفروض وسنن سكرت لأنه قد ساخني لوطن به نفى ما خني waxaadani lay bi taxalli min baadi ma xasaba bi taxalli wajarani fi ilal ulumi wal fawsa bil amali bil maalumi suma sa waaw jërëjëf sëñ Mourou Makhtar Sarr jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñëw leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sëñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi dolli ak wéram beral am nuyoo ak ziar sëriñ Abou Mohamed ak mbooleem njabootu maam Cheikh Anta gépp euh, tey li xew fii mooy mbaleem Daaru Salaam bi muy mbaleem yi nga xamante ni bii yaakaar naa ne ñëpp déggoon nañ annonce bi wane ne tey jii fas nañ yéene defal set setal ci Daaru Salaam set setal boobu nag ci lañ xëy tey euh, ànd ko nag ak mbooleem njabootu sëñ Tuubaa bi bu dee bu jigéen bi ci njiitul soxna astu moom sëñ Abdoulahi borom dër bi borom moom sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul waaye nag ànd ko ak sëriñ Mbàkke Madina mi nga xa ne moom moom la ñu jiital ci wàllu mbale mi mu ànd ko ak commission bi nga xam ne ñoom da ko seqal ñoom ñëpp. Euh, bi ñu xëyee nag yàlla dogal na dañuy njëkk a sant ci taxawaay yi taxawaay yu rafet ndax dëkk bi fii nga ko gisee lu ëpp ci mbalit mi daje na. Euh, lu bari itam ñaari peel yi nga xamante ne bi am nañ ko ak yoon wi nga xam ne. ca CRD ba waxoon na ne nañ wut waneen yoon woo xam ne déviation lay doon ci nga ñu fekk ni ñu taxaw ngir man ko fàkk mu tàmbalee ci stop bu Mbàkke bi ba dem ci stop bu Daaru Salaam bi ci raay bi ngir oto yi man di jaar foofu ndax penc bi dafa xat euh, ñu di ci sant nag bu baax daayira Nooru Daarayni Touba ca kanam ci ci turu sëñ Abo Mohamed ndax ñoom bi ñu leen ko yëgalee demuñu woon ci CRD bi waaye bi ñu ñëwee sëñ bi moo jotal boppam sëñ Abibu wax ko yebal nañ fi ay camion yebal nañ fi gradeur bi yebal nañ fi ay pelle yebal nañ fi ay camion loolu lépp ngir wàcce ko bis bi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa liggéey li woon lislaam ba am ndam adduna bépp bokk ko Sénégal gépp bokk ko ba ma doon wax fête indépendance dama naan ne bis bis nit ku ñuul njëkk ame ndam mooy bis bi sëñ Tuubaa amee rek Tuubaa kon yaakaar naa lu ci waay def sa bopp nga ko defal ginnaaw loolu ñu sant ci commune bu Touba commune bu tubaa ci turu Abdou Lahad Ka moom it engagement yi mu ci jëloon daaw moom la ci jëlaat ren te it na engagement yi lépp yebal na fi ay camion yabal na fi auto euh, vidange yi ñaari fan a ngi nii auto vidange mi ne fi ca moo ci def gasoil boppam oto bu ci nekk def na bu leen ci def dara maa ciy def gasoil boole koog nag lam la ko war ci ay taxawaay lépp mu def ko ci digganteem ak Serigne Abou Mohamed kon moom it ngi koy sant di ko gërëm di sant itam euh, waa UGC ñoom it nañ waxe woon ak góornóor la leen ci war lépp def nañ ko ci seen i seen peel ñëw na seeni oto ñëw na seen mbooloo ñëw na di sant kuréel association yi nga xam ne ñoo séq diggante Daaru Salaam ak Touba ak Mbàkke ñoom ñëpp xam nañ ne màggalu Daaru Salaam ñëpp a ko bokk du bis bu ñuy wooteel maam Cheikh Anta du bis bu ñuy wooteel sëñ Mudu Maamun bis la boo xam ne day feetu victoire bi sëñ Touba amoon ca sëñ Touba moo ko waxal boppam ne maa cant gi nga xam ne fas naa ko yéenee sant yàlla mooy bis bi nga xam ne jóge naa ko ci eh, liggéey bi dellusiwaat ko Daaru Salaam ak cant la goo xam ne dañ koy sant rek ñibbi si ma Serigne Touba jóge ci géej gi di ci sant itam nag bu baax a baax euh, Mor An Guèye bu Mbàkke moor An wax dëgg yàlla ci taxawaayu boppam laa wax ci jëmmi boppam indi na fi ay bale yu mu jënd ci xaalisu boppam andi na fi camion yoo xam ne commune bu Touba ñoo ko ko abal mu def ci gasoilam indi ko fi taxawaay bu ko ci war rek def nañ ko ñu ngi koy sant ci turu comité d'organisation bi waaye di ko turu sant nag ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu set bi ak la ca aju moom Mor An Guèye ñu ngi koy sant di sant mbooleem ñi nga xam ne nag jàpp nañ ci ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waaye daal sëñ Modou Matar na nga xam ne commune bu Touba Touba ca kanam association yi nga xam ne ñoo war dëkk bi di bale ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen. maire bu bu Mbàkke nag mënu ma cee wax agoon benn baat ndax ma lu ñu def Mor An Guèye daal ba mu jëlee engagement ca euh, Diourbel ca CRD ba góor noor santoon na ko ne ko dafa mel ne màggal gi lépp yéen koy def waaye ba fii ma la koy waxee. du camion bu jógee Mbàkke du oto bu ñu fi andi même sax woote fi laaj ba xam tey la mbale mi wala de defuñu ko jëmmi Mor Anda léegi gis nañ ko Mor Anda nag ñu ngi ko gërëm. léegi kon fi mu nekk nii wàccaay bi lépp mu ngi yemb ci yeneen wàll yi aussi. waaw wàccaay bi moom fi mu ne wàll yëpp moom wax dëgg yàlla mi ngi ciy yemb fi ne daal ci mbale mi lañ tolloogul mbale mi daal waxagul naa la fi ñu ci toll ñin ci tàllaloon loxo ñin ci gisagoon sant nañ leen sëñ Abdou Lahad nag dafa ne du ma sant ku ma defalu dara waaye ku ma defal dara naa la sant ba àddina bépp dégg ko xarabuñ kenn waaye nag mënuñoo sant kuñ defalu dara waliyasu xayra xalaalin taybi wa xayra jiraanin bi aqi taybi wasafini fi baatinin wa zaahiri warham bi alxalqa bi xaqi taahiri ورقني ترقية خفية ببندي رقية سفية وخي أذاي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى الخيامة وليجر بحسن الخاتمة هنا وفي خدم بجاه فاطمة صل على أبي مو والآل وصحبه ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اخترار وخرر ونجني ربي وأهل داري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 wajal ijaaban baynana wa bayna kulli asan wal takfi anna alxay njabootu Serigne Touba gi xëy si woon Daaru Salaam doon liggéeyal Serigne Touba ci ndigalul Serigne Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun waaye mu tànnoon jëwriñam di doomam di Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa Serigne Modou Rokhaya moom it mu tànnoon ay ndawam. ci njiitul sëriñ Mbàkke Madina mu sëriñ Moodu Roqaya mu ànd ak ñi mu ko seqal ñëpp ànd ak sëriñ Jiidi mu sëriñ Abo ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ci comité d'organisation bu màggalu Daaru Salaam xam ngeen ne ba ñu defee CRD ba déggoon nañ kàddu sëriñ Cheikh mu soññe woon jëm ci wàllu mbale mi waxoon ci ab gouverneur ñu jël ci ay engagement waaye ba ñëwee ñu yónnee ci mbooleem kuréelu set setal yi ne ci dëkk Touba bi ak Daaru Salaam kuréel yooyu nag sëriñ bi ñu ngi lay xamal ne benn kuréel desut du kuréel bu yaakaar ko sant Mbàkke wala kuréel bu yaakaar ko sant Buso wala kuréel buy wuyoo Faal kuréel yëpp daje nañ fi ngir xam ne bis bii bi sëriñ Touba di ñëw maam Cheikh moo ñu njëkkoone def lii bañ ko ne Serigne Touba gi ñëw day yónnee ci kër naar yi fi nekkoon mbooleem fu fi ab piis bopp may luus wala bopp bassin nekk mu jënd ko muure woon ko sengi kër gi muure ko garab yi bale kër gi ba mu set sëriñ Touba soog a ñëw wàcc Serigne Touba moomee nag lañuy ñuy séentuwaat ndax ku ne xam na ne Serigne Touba bis bu ne la ko ca yàlla may. saa yu at ma dellusiwaatee may googu day yokk day dolliku ndax moo ko waxal boppam ndax nee na woon liggéey bi jeex na pay gee ci des pay gi nag bis bu ne day gàccal sama démb loolee sëriñ bi sa bokki bopp di soxna Astu Mbàkke moom sëriñ Abdullahi moom sëriñ Touba di doomi soxna Daba moom maam Cheikh dama koy wax léegi na ko sëriñ Tuubaa de ba ab liggéeyam matee ba mu dem gànnaar ba ñu bis ba may yépp daje ci loxoom sa way jure njëkk a feeñ jamono fii ci daar daar waaye gane woon daar àdduna daar rahman nga ci ceyeen jolof waaye ku ne xam ne ne soxna daba moom maam saxanta bi yàlla defee ci sëñ Tuubaa lim ci def sa maama njëkk a jaayanteeg moom moom moom mu teew si na ci jataay bi ànd ak mbooloo mépp nag àndoon ak soxna maam Faati soxna maam Issa Mbacke ahlu café moom Serigne Modou Faati Xari moom ma sàmba ku ne xam ne ne dëkk bi moom bu ñëpp toogoon it moom mu bare ko ndax bi maam Cheikh Anta demee àjjana Serigne Massamba def fii at dëkkoo néeg maam Cheikh Anta ba fu mu mën a xëy ñibbi waat ci njabootu maam Cheikh na leen may man mii maa fi Cheikh Sidi Muxtaar ma sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ni ma ko waxee rek nee na bu ñu yemoon ci wax jooju rek mu doy wax ne jaajëf ji nee na moom mii lañ ci doon déglu nee na bu waxoon ne jaajëf yam ci rek xam na ne lu leen Serigne Touba nar a defal ak lu leen maam Cheikh nar a defal ci liggéey bii day yokk waaye dutu dellu ginnaaw nee na Pastef kat moo leen fi andi ñi fi daje ñëpp Pastefu ci sëriñ Touba Pastef bi nga xam ne moom lañ am ci Serigne Touba nag Pastef bu ko raw moom la maam Cheikh amoon ci sëriñ tubaa kon nag fii nga xam ne am ñaxa fi nekkoon akob xaaxaam ak i ëkk maam Cheikh Anta daan fi béréngu ndax bañ lay bi laal sëñ Touba kookee day bëggoon na dëkk bi set waaye bëggoon na itam kii di xalangu ci kanamam mu wutal ko ndam ndam loola nag mooy lii mboolem yoonu murit ñépp a fi daje ndax ñi ñu lim ñooñu ñooy yoonu murit ku ma tudd muy Baay Faal muy Baay Mbàkke muy Baay Jenn muy Baay leneen sëñ muntaxaar rek la yaakaar sëñ Muntaxa mooy sëñ Tuubaa yàlla na fi yàgg lool te wér sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te kon lii ñu def nee na sëriñ bee ñu waroon a sant sëñ Muntaxa waaye bu ñu santoon ñu bàyyi ko moom mu ñëw fii di ñu sant nee na kon ñun lu ñuy jariñ boobaa ginnaaw ñun dañoo war waxtu wu ne ñu nekk ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi di ko xëyal di ko gontal waxtu wu ne ñu nekk ci mbiram di liggéeyal sëriñ bi kon kay fu sëñ Muntaxa munta dem ñu demal ko fa lépp di liggéeyub sëñ bi rek waaye nag sunu xol sedd na ci lool ndax sëriñ Abo Mouhamed mii bañut dara bañut kenn liggéey rek la bëgg liggéeyal sëriñ Touba rek la bëgg ginnaaw nag bokkam yu tedd yii ñoom ñëpp ñëw nañu CRD dañ cee mënta ñàkk a wax ndax di daf di gouverneur moo wëlif police yi yilif ñu yor ndox mi yilif gendarme yi loolu moo da tax nag CRD di am waaye bu doon bale rek ñun yor moo leen dàq bale fuuf ñoo dàq bale fuuf ñoom ñi daje fii ñoo dàq bale ñëpp te luñ bale mu set ndax seeni xol dafa set Serigne tubaa kenn du ko yaakaar te muy dëgg ci yow benn tilim tilim di nekk ci sab xol ku sab xol set nag loo setal dana set zahir ak baatin jëf zahiran ak baatin ak baatin kon ñi ngi sant ñëpp di ñaan ñu dajawaat ko déwén te bu déwénee déwén ndaxal ñu ren bu kenn tawat bu kenn amuk jaaxle soxla yëpp yal na ko sëñ Tuubaa faj maam Isa soxna Astu ñi ngi delloo waat siyaare bu baax soxna May soxna Maamanta Ja ak soxna yi ci des yëpp ñoo ngi leen di sant bu baax kenn ku ne mbooloo mi ngi fi indi miin na liggéey bi miin na it liggéeyal Serigne miin na liggéeyal sëriñ Touba kon nag jërë ngeen jëf. ay jigéen ñu man góor daal moom ngeen loolu moom wóor na ma jërë ngeen jëf tubarkàlla sëñ Fallou Tine ñu ngi koy bàyyi xel di ko sant bu baax soxna Ndey si la wa batinin wa bil xuful wa kun muizana min al wabai wa kulli nazilim min as samai wa kulli ma yaduru fil ardi